xam ne xën xën nga ko ci maamu Chérif Mamina bii moo tax fa tubaakàlla macha allah waaye li ñuy xamal askan wi rek ne semaine bii ñu toll nii ba ci semaine prochaine dinañ ànd ak yéen gàmmu ji dellu si tamit fa tubaakàlla macha allah lépp rek ci addiya Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yéen ñi ñuy seetaan kenn gënu leen bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li koy firndeel mooy bi ñu tàmbalee waxtaan wi ba fii ñu toog yaa ngeen di yëkkati seen téléphone di wax cofeel gi ngeen am ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam démb dañu pare ndeysaan mu am soxna yoo xam xam ne fii la ñu ñëw di seet Moustapha Mbaye di seet oustaz yi naan dañu leen di jox adiya sëy euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax cofeel gi ñu am ñoo ñu sax mën a ñëw ñi nga xam ne am nañ yéen nekk bitim réew te mën ñu ñëw ñoo ëpp waaye xam nga ni ne fatubakàlla macha allah euh, euh, ku ko lebal Euh, guddi mu fay la ker mu fay la guddi macha allah macha allah mu mel ni fii la ñuy tàggoo tàggool askan wi Chérif tàggoo ñu dem guy aja dégéen jërëjëf Baye yàlla nañu yàlla may wér gudd fan ma yàlla may wér amin amin amin Baye ak gudd fan gu mu mën a wéyoon amin amin lii loolu rek laa bëgg ndeysaan ci barke weer wi ko suñu borom defal amin suñu xool sedd na guy ndeysaan di yàlla yàlla na fi teraanga sax amin ya rabbal alamin yàlla yuusu telem bi yàlla na ko yàlla yàlla na ci yàlla sotti xéwal gu baawoon. amiin amiin amiin ci daraje weer wi di weeru yéen solo. amiin sallallahu ci sama xol sedd na guy. yow nii nga def ak man moom nga def ak man fu nekk. fu ma la fooyee sa maam rek. nga teral ma Ndiaye lu Ndiaye mi rawatina Adja Degene mi. ah Chérif yaramam dafa tàng. waaw waaw waaw man mii toog nga xam ne yoruma saat. waaw joxeel ma ko fii man xam nga fi ma toog yoruma dara waaye man fu mu ne nii man nit ma defal sax dafa rëy. ah alaaji altine altine ba léegi foo yëkkatee moom moom moom muy fekk parce que ndax bëgg Seydina Muhammad maanaam démb la woo ndeysaan ko mu soo mbaay lu ma fayee ku ma fay ndeysaan ndeysaan ngir yonent damaa dem ñu jooy ak magam mu jox ma addiya yu bari addi yoon sala sala lépp cofeel la sallallahu alayhi wa sallam kon ñoo ngi ñaan yàlla na fi teraanga amin amin amin amiin maa ngi leen di gërëm ak ñoom kondaar ma ñoom ñëpp sama soxna ñoom ñëpp sama sama soxna baax ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm dara yonent bi sama xol sedd na guy euh, ndax yonent bi solo sam ñëpp koy màggal bis bi a koy màggal rawatina Euh, Issa Sène dañ koy màggal guddi googu ah Cheikh Modou Diouf Modou Diouf bi nekk Guédiawaye ak Aïda dañ koy màggal ñoom tam ñu koy màggal bari nañu ah cofeel cofeel ndax guddi googu guddi googu rek ah moom li ñëpp am Chine moom la ñëpp am Mbacke Faye koy màggal fii ci Barka Moussa. jërëjëf fii ci Colobane. jërëjëf jërëjëf. moom mooy doon taxal général des Mourides. jërëjëf ko ñu koy màggal bari nañu. jërëjëf ak ñëpp a koy màggal. jërëjëf jërëjëf kon ñoo ngi ñaan yàlla yan yàlla guddal fan. ba suba ci kàttan yàlla ñu ngi remercier waa bureau ba. Chérif tàggool askan wi. waaw eh, eh, fa tabarakallahu. <laughs> incha allah incha allah. ñoom ñoom. bàyyi ba mu mën a ñëw fii ñoom maamu ñaa gis ko ak sono far seen sama xol sedd na guy di gërëm Baba Traoré bu transfert mu ko bëgg yoon salaas la ñu bëgg bari nañ trop yàlla guddal seen ah, waaw ah, Adja Dégène di ah. kontaan mhm. ndax euh, li ñu waajoon yëpp sax mu mënuñu ko def ndax euh, jotaay bi xat-xat beeg yëpp waaye di delluwaat di sant yàlla euh, di julli ci yonent bi waaye nag di gërëm itam kër gi ndax euh, première émission diine fii maa ko def maa ko Moustapha Mbaye mi maa njëkk def émission première émission fii ci TFM man maa ko def maa ngi ñaan yàlla yàlla fi yàlla dolli barke yàlla dolli fi juboo dolli fi bennoo waaye itam di la seedeel ni nuyoo Serigne Youssou Mbacké bu Cheikh Mbacké Gaynde Fatma bi nga xamante ni Mouhamadoul Moustapha Gadio Serigne Touba keroog dañu organiser conférence bu rëy buntu kër Cheikh Mbacké ci Colobane ñu jagleel ko Alaaji Abdou Aziz Sy Dabakh waxtaane la vie et l'œuvre de Maodo yónnee njabootam yëpp doomu Cheikh Mbacke yëpp nekk fa maa ko conférence ak tafsir Abdourahmane Gaye waaye tamit seen baay Alaaji Abdou mm. moo tiim Serigne Saliou ne ko ayabna hadimi Taha waarisi sirrihi xilaafatuka alxaawi ridaahu bila jahdi ne ko xilaafatuka algarraa ahsanta saalihan fa akrim bikum min duni naqsin wala zaydi mu ne xomma kan waaye yow Serigne Saliou ataalal aliyul baaqi baqaauka murshidan yaquudu alladi yarjuuka lil maliki lfard mu ne wa haza hadiyatun minni hadiyatun minni mu ne ko li ixla li islaahi zaate baynin yaa xaafid al ahdi amul lu mu waxul Serigne Sall gis nga li mag ñi àndee kon Sénégal nañu àndee noonu waaye di la jotal nuyoo Ami Sall soxna ma Mayoro waaye nag di di di gërëm bu baax itam Adja Ndella Wade ndax gàmmu gi depuis daanaka fukki at ñoo koy defal macha allah fa tabarakallahu mu tabax kër gu jéggi dayoo su ci waawoon macha allah ngir sagale ko bàyyam bu tedd bi alaaji abdul aziz si dafa sagale ko cheikh alhaji malik si radiallahu anhu xeetu teranga bu ne mu ko fay def ñuy ñaan yàlla moom i tamit yàlla aar ko yàlla sàmm ko yàlla wattu ko ndax bu sañoon ñëpp di benn Ndiaye Lo nuyoo mbooleem doomu soxna yi mbooleem këru diine yi ñëpp ñu ngi leen di jotal seen nuyoo waaye Adja dégeen sañse bi rafet na lool la waaj a waxoon ni dooley xotti ah. waaye xelay sañse jërëjëf jërëjëf dooley xotti waaye xelay sañse waaye sañse bi rafet na lool macha allah allahuma la adduru ah, na sañse yi gën a rafet ndax alaaj Malik nee na ah. an attiro yeewu leen parfumé wu baxiiroo suuru leen xëyral buxur yi gën jaa neex cuuraay wafrisoo sajaadaat yi leen darab yi laal yeneen darab wala sañse leen changé leen mbubb yi sol mbubb yu rafet pour lan takriman ngir teral alal xudam yi borom juddu gu rafet yi bi yonent yàlla Muhammad nañ yàlla boole jërëjëf ay dara jëx na tàkk damaa tax na tàkk damay dañuy siyaare rek Aminata Tall suñu doom ah kay sopp nabi la yàlla defal jàpp sopp nabi wallaay wallaay te ñëw ndax bisub nabi bi rek tax yëpp maam fili Diallo sa mbokk. ndeysaan Ousmane Tanor. ndeysaan waaye di gërëm Fadlaay Keda. sopp na bi la euh, sopp na bi. ndeysaan di ajidatu Leena Fall Diagne. ndeysaan sopp na bi. ndeysaan ndax liñ koy tudd ci guddi Mouhamed bari na lool. sallallahu alayhi mu ñaal bu baax. di gërëm nag euh, sama goro ba nekk ci ndeysaan ne da nga koo sàpp muy Nogoy Ndiaye. ndeysaan sama soxna bokk ndeeg baay. ndeysaan waaye Modou Mbaye sëriñam ñu nekk ci caaro yi. Euh, di ko bëgg fottoon. macha ak nag sa njëkke. Mm-hmm. ajidatu daba si bi roqee. macha ba gërëm nag ki xam ne kii yaa moom sa jëkkër bokk nekk dëkk ca Mbacke Bawol dëgg la dëgg la madame Mbaye nenn euh, Ndiaye yal na ko yàlla gën a jàppale bu baax waaye dëggan macha allah sëriñ Fallou Garas Mbacke Maya daal yàlla na lépp mu àgg amiin amiin yaa rabbal aalamiin ñëpp amiin yaa rabbal aalamiin sëriñ nag nu mm. ngi lay bàyyi ak sa maam nii nga mas a mel ci conférence yi dëgg la yow foo dem fa nga dëgg la waaye koo gis maasee ak moom kon nag yal na la jik amiin amiin yaa rabbal ci sa ceeb dëggan nag mm. euh, heure bu xëy dama ko naa aéroport avion bi naaw na <laughs> mu foofu waaye lii cosaan la waaye dama ko def bu ko bàkkoo ko doon suuxat ndox ma ba nga mel ni mooy sa waajur jigéen wallaay Camara ji jigéen ñi góorgóorlu waaye na góor ñu muñ ndeysaan ndeysaan jërëjëf jërëjëf Fatou Bakalla macha allah xanaa sargal sopp na bi yëpp yëpp yëpp yëpp Fatou allah allah ji xam nga cuub bi moom aju jóob cuub la nekk ah. rue vingt cinq ak vingt deux ah mooy mooy def ci baax yi ah, ah, ah. Omar Omar mi nga xamante ne mooy sama tëgg ba yàgg lool ah te bàyyam doon ma tëggal ah dañuy bijoutier nekk euh, centenaire ah ci ginnaaw Chalimar ñooy tëgg xam nga allah ji dafa yoo xam ne démb la man ba ba ma daan tëggal làqu euh, réeralul puso bi man ci yooyu rek laay dox ah bëgg rek askan wi beeg waaye tamit lii yëpp nag bëgg jikko yi rek gën a rafet macha allah macha allah jikko yi na gën a rafet lii yëpp amul solo jikko yi rek moo am solo fa tubaakallah macha allah lii duuf ci ñag bi yëpp xajul ci cin bi waxtu wi jeex na takk takk takk takk takk fa tubaakallah macha allah ah, ah Fatou Bakalla macha allah di nga ko wax suba wax nga ko léegi waxaat ko suba <laughs> ma waxal la Moustapha Mbaye xoolal Joséphine da nga may bëgg rey nuyu nga léegi Baba Traoré sopp na bi waaw sallallahu alayhi wa sallam kon ñu leen di jox rendez suba ci kattanu yàlla ci beneen émission wareef ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam yàlla bu kenn manqué yàlla bu kenn manqué li ci barke alxuraan al karim delluwaat rek di ziyaaret kilifa diina yépp fa la macha allah sukk nañu tàllal loxo di sàkku ñaan ci ñun waaye tamit di sàkku ñaan ci réew mi jërë ngeen jëf Washington ak waa Paris ne ñoom ñoo xambataal bi Walf Fadjri Grand Place ne wuya yooyu fu jëm réew mi mooy bëgg a tàkk ndax Sénégal moom ku ko taal kenn du ci mucc police moom moo fexe ba raag ba naaw am démb ñaari nit ñi ñàkk seen bakkan ak ñaam ay gaañu-gaañu lépp mi ngi ci biir Walf Fadjri Grand Place su dijee ne démb dong ñaari doomi aadama ñoo ñàkk seen bakkan laas ko dijee ne Mamadou Diop nag mooy néew bi nga xam ni faatu na mu ëpp euh, waaye baayam kàddoom yi nekk ci laas quotidien ku ko yor tey sa yaram day daw wëyaayooy woy fu ma jëm sama doom ja dem na réew mi quotidien ne réew mi tàkk na nag Mamadou Diop dem na am na ñeneen ñoo xamante ne nii ña nga ca l'hôpital yi te bu ñu moyewul du baax ci ñoom lew na na seen ak njabootu ameen di sàkku ci Abdoulaye Wade mu dem kenn waru koo taal danoo war a wut jàmm rek ci réew mi taxaw leen ma wax leen ndax nopp dalootina wal fajiri grand place moo ñu nettali loo xam ni mbokk yi yokku leen télévision yi eh, yokku bët yi tey ma wax leen loo xam ni musu leen ko dégg te du ngeen ko dégg ilaa yow mi di abadan wal fajiri grand place nee na ñaari couple ñoo demoon ci seen benn kër xarit di pareer yi comme nag sénégalais teranga la xam du ci dal ndax mënuñoo ñëw lekk naan ah, dem noonu rek jëkkër ji ne ko yoruma dara ndaw si yoroon nag junni ci kalpeem yëkkati ko joxe ko teraanga ndeke na loolu xunduloo na këram ah, mu tàmbali rek ah, war ci otoom fiile